waa ci ginnaaw mais bi bi yi waaye dafee karaj karaj ma ah bon maa ngi doog xam ne maa ngi biir kaso damay bi muy tëj bunte mu leer ma ne man tëj nii ma caabi fekk na ma ginnaaw mhm. mais nag daf ma dama dama muuñ sax ko ma ne ah dama def genre muuñ ko mhm. ma ne xoolal rek situation yi mais alhamdulilah rabbil alamin bi mu tëjee rek ma ne xoolal tey duma ma en tant que tijju ma du génn fii nga jàpp sa biir xol bi. oui da ngay dund situation waay te defoo dara. ba pare nag taxul ma ma tiit mais ma gën a ma sant yàlla quoi. mel ni ku muñ sax ci sama biir xol ma sant borom bi. fekk fa gars yu baax tamit macha allah fonk ma tellement. Mhm. ma ngi rappelé am na booy boo xam ne euh, dañ doon faral di jàng noonu ci biir gis nga bi may tàggoog moom pour génn chambre 4A dem bee. Mhm. booy bi dafa découragé bi may quitté ci néeg bi. comme ne naa ko maa ngi dem dafa découragé parce que miinoon na ma bi ñu commencé waxtaan boobu tamit xam nga xale moo ko affaire xale la quoi affaire portable te mën naa parent yi ñu ngi liggéey ma ne gars yi jàppaleen xale bi parce que man ngeen ko récupérer. Mhm. xam naa mu miin ma nag quoi bi may dem ma ne ko maa ngi dem mu découragé quoi ma ne ko noonu dañu ma toxal euh, secteur bee quoi. Mhm. parce que pénitence yi toujours dañ ma naan xaaral parce que il ñu bàyyi la ci boo xam ne doo am wala yooyu quoi. ci la ñu ma toxalee secteur bee. mais ci biir diggante bi ñu ma tëjee mois de mais mois de juin laa commencé bind benn commencé bind benn livre. Mhm. ah yaa ngi ci waaye bind naa benn livre ci kaso bi pareegul sax des na tuuti. Mhm. parce que damay xool fu événement yi di mujj parce que daal ay conclusions yoo xam ne war naa ko ci def. Mhm. ci laa tàmbalee dem ci bitig bi ci kaso bi wut fa kaay sans sans passe ak bic. di bind rek. gars yi bu ma may tuuti néeg bi rek ma bind léeg-léeg ñu di seetaan télé sax mu nekk suma ruq ba la rek toog di bind rek. parce que xalaat yi ni muy ñëwee foofu c'est pas conflit mm-hmm. man bi ma génnee kaso dama commencé yàqamte te daaw ma yàqamte kaso. Mm-hmm. ci biti ci biti da lay yàq lu bari hmm? non biti biti biti doo concentré wu. dëgg la ci biir mais ci biir ci biir dal. Mm-hmm. kaso da ngay dal. xalaat yi day ñëw bu baax. xalaat yi parce que doo doo gis yu bëri quoi du la du la kii da ngay xalaat xalaat bu baax muy ñëw. ci laa commencé di bind. saa ma amee temps cours bu ñu génnee cours léegi ma xalaat ñoo ma dellu néeg ba wala ma génne ci cours gi làqatu fële gars yi di ñii di sport fii ñii di damier fii mm-hmm. ñi nekk ci politique bi fii Sonko nii fii cours bi day neex quoi. Mhm. voilà oustaz ma ma tënkub ñaari ñaari plat ci ci ci benn euh, bi ci jiitu mooy euh, dëgg la bi nga duggee ci kaso bi xëy na am nga ko connaissance su nit ñi. Mhm. ni mu euh, enfin yeneen détenu yi li ñu doon dund amaana ci di sa dégg-dégg dundee woo ko noonu. Mhm. mais ñàkkul ne am na loo mës a dund ci kaso bi ci sa biir xol loo xam ne amaana doo ko fàtte ba mu li la gën a naqari. ci sa séjour carcéral beneen bi mooy ba nga fa nekkee ba tey. ndax gisuloo kenn koo xamante ne jóge na ci biti. mu féete soit ci wàllu état bi wala yeneen yu ni mel ñoo xamante ne ñëw nañu ci biir kaso bi waxtaan ak yow. Mhm. pour xool ba xam ndax mën na am achat de conscience wala leneen lu ci topp wala yow dundoo loolu. non malheureusement euh, heureusement aw ma ko aw ma ko ñu ma fa seet comme euh, am na ko ma fa seet si moom daf ma doon ziar si sax. Mhm. xamuma ko mais dafa dégg sama kaa ñëw fa demande du jour visite sax mais dañ ko may mu dugg ma génn dem ci bureau gars yi day faak moom fekk mu may remercier di ma muñ boobu la. kilifa la wala waa kilifa la. kilifa la mais daf ma doon parce que li ñu ma teg sax neexu ko déjà voilà mais mosuma am cas yooyu foofu euh, li ma dund bu méttee te méttiwul ci man diggante garde à vue ak retour de parquet foofu laa gis ne bu dara di métti sax foofu la ma mën a dalee parce que tëdd ci karo yi nelaw bi léeg-léeg police bi xaw a fees et cetera va et vient bés bu ne ñu ti la yóbbu police wàcce waa ji may yóbbu premier jour. tribunal day dawal oto bi jaaga mu gëstu xool ma man rek nekk ci oto bi mu ne ma mais oustaz xamee na ma xar mu ne man xam nga la moo mën a xari tey depuis ce matin ay imaam laa yóbbu tribunal. <laughs> ma ne ko ah mu affaire def ma rek quoi. billaay mu ne ma ay imaam laa yóbbu tribunal. Mm-hmm. dëkk bi kon mu ngi nii. kon oustaz yow boo déggee. Mm. président Macky Sall ne amul lu muy baalu <laughs> lu mu lay def. waaw xam nga xam nga xam nga nguur buy jeex nit dootul nekk ku mhm. fi mu nekk du cohérent ci rien nii ci jëf nii ci wax voilà mais moment yi muy waxee conscience am nee na ko yaa tooñ te loolu am solo. ah mu naan man tooñu ma defuma lu war a nee na ko yaa tooñ te nit mooy cons nit du dara conscience la. Mhm. xam nga yow su ma la fenee sama conscience moo naan oustaz da fen Cissé. Mhm. conscience mooy nit. waaw bu nekkoon parole yàlla ci nit mooy conscience yàlla bu doon wax ñun toujours conscience la koy jaaralee moo tax livre bi sax bind naa ci conscience ni ko nit war a di dégloo. science sans conscience. voilà il ñu déglu suñu conscience. xam nga nit mën nga di wax nii rek. Mhm. mën nga di wax nii gis nga bi gars yi génnee ci penc bi naan yonent bi dafa dof di diaboliser. xuraan mm. dalee ne non penc mi moo xumb rek ku nekk na dellu si nekk individuellement nga xalaat sérieusement est-ce que waa ji daa dof ku dugg néeg nga xam ne doful boobu conscience ay wax ak yow ngi dégg kon conscience moo koy tontu ndax li xew fii nga jiite réew mi ba mu toll fii nga xëy ne doo kàddu gi sax moo war woon génnee noonu parce que tamit war woon génnee noonu voilà maanaam nguur guy jeexle nag xam nga jaan boo ko jamee su gaañoo day deeyi jaan bu gaañu rek day deeyi. ku mu màtt nag dangaram ni muy garaay du bokk ak bu normalee kon nan ko moytu. moytu ko jamono ji. mën naa def lu nekk mën naa wax lu ne. ah day dem. <laughs> waaw parce que day dem mooy waxu Pa Assane Ba. <laughs> mën naa def lu ne mën naa wax lu ne. Mm-hmm. wax dëgg jékku fi nguuram di jeex aéroport bi pareegul mu yegg avion pour tiim ko rek toogaat boobu euh, xel ma bi mu ne wax dëgg def na ko fi di. aéroport bu Diass bii comme tàmbali ni ko te nguuram jeex mu ne xaaral ah, mën naa ko rek te tiim delluwaat Ndakaaru ban chance la amoon boobu nguur bu ko yàlla yi jël ni ngay bégee bi mu la koy jox. Hmm. bu koy dindi noonu ngay tiitee. Hmm. Hmm. mbégte bi ni mu tolloo noonu la tiitaanga bi di tolloo wala sax mu ëpp ko. d'accord moo tax wax yi yëpp ndax soxla na moom fi mu nekk nii ku ko encadré yu mel noonu. très bien ah, très bien naka. xam nga lan la dafa ñoroo dafa wéet mais lu wéet. waay waay waay waay parce que dara neexul sa famille. yi nga doon àndandoo di def bi ngaa dem sax fekk ku nekk ak lay daw loolu rek mettit la waxuma laa bu population bi xam nga bu toogee ko rek naan gaa yi. mënu leen xew la dëgg damay dem. waaw mënu leen mënu leen ma défendre ngeen toog fii. xama di mënu leen wane samay kii. boobu mu ngi sentir ne xam nga màgget bu ne ci kër ba ci yàgg soxna si daw bàyyi ko fa ak doom yi buy woote du dégg kenn. Mm-hmm. ni mu méttee. Mm-hmm. personne âgée yi. toog ko woo sa set doo dégg kër wala maam da ngaa bëri wax. dëgg la boobu mm-hmm. commencé nga jaaxle. dëgg la bu ñu la assisté wul léegi malaakal mawti jël si la te fekk sa am na màgget yoo xam ne seen àpp jotul famille bi moo leen abandonné ñu dee. manque d' assistance. way am na màgget yoo xam ne manque d' assistance moo leen yóbbu. Mm-hmm. nit nag mu sa nguur di jeex mu leer la ne léegi c' est lu ne mën nga ko wax lu ne mën nga ko def. nu koy jàppale ci loolu. maanaam gëmloo ko yàlla su ma ko jege woon gëmloo ko yàlla. ndax c'est pas waaw gëmal borom bi la ko joxoon moo ko jëlaat. ndax loxo yaa ko foqartee. bu mu la gën a gore. loxo yi koy jël si ci yow. buñ la mm-hmm. gën a gore. Mm-hmm. ba pare nga baal ñëpp àqati dem. waaw parce que yaa génnee amnistie parce que amnistie bi ak parole boobu dafa waroo baatu amnistie bi bu mu bëgg ak wax ji daa waroo maanaam bul toll fenn fii c'est fini c'est fini. bul yokkaat xar bi kawar te jeexul je mën na mën nañ ko mën na xam sénégalais ñu baax la ñu xamuloo ñu ñu mhm. gaaw a fàtte lañu. dëgg la dëgg la danoo gaaw malgré li xew xew alpha. Mhm. léegi dañuy toog sax man sama genre gi soo ma doon woo pour ma baale mais day yomb ci man parce que Amadou Bamba daa baale. Yacine di sa yow sa part baale nga. Mandela baale. Mhm. mais nag dama naan du ma tëb rek ne baale naa. xam nga lu tax. lu tax euh, réconciliation kenn du ko pëtam pëtamee. day des ci xol yi. waaw da nga koy togg ba mu ñor. dëgg la da ngay jël baale sax nag. da nga koy togg ba mu ñor. Mhm. Afrique du lu ñu def dañoo dajaloo toog. Mandela 27 ans la def ci kaso. Ah keroog ñu ngi li sax benn waay ji ko doon Mandela bu ne dama mar naan day saw ci kaw bokku Mandela. garde pénitencier bi saw. Mandela falu day moom ci benn restaurant. waaw muy patpati. pati lu mu ko wax woo leen ma waa jële mu ñëw parce que jàpp nañ su génnee fii mooy c'est fini. léegi nag mu ne ko toogal ñu bokk table bi à table lekk loolu rey na nit. te laalu ko. comme ki ko mbéjoon nit. voilà mu ngoog d'accord loolu grandeur la. Mhm. Mhm. esprit am esprit de dépassement. waaw tax jaru ko. jaru ko mhm. maanaam bul nangu sax ñu lay pose yenn yi nga ciy tontu. dëgg la nga ne du ma ci wax sax moo gën a woyof. parce que nit ñi boo leen yokkee mer rek. am na ñoo xam ne amuñu doole dañuy pelante ci yàlla. de booboo gën a garaaw. tey plaintu yàlla mooy bàyyi tamit mooy su doon yow la mooy bu ko na bu amee tamit damay dem bu doon yow danga ko naan déet na rafet mooy na toog. na xam nga lan la. xam nga xam nga xam nga loo gis mujjantal ga moo jara ñaan mu baax doo dégg nee naan la yàlla mujj yi baax. mujj gu rafet ñi tàmbale naa bon am mujj gu rafet. dëgg la ñi tàmbale baax am mujj bu bon. Mhm. voilà na xam ne doomu réew mi la fi la juddoo. joxo nañ ko suñu confiance li xew xew na mais na rafet. na rafet jaru ko parce que ëllëg ay nettali la gis nga histoire day nettali suba sa sët yi sëgg wala ñu sigi. wallaay dëgg la ku yebu ci ñun ñii yëpp.